saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey xëtu njëkk ba daal di fay fekk Boy Niang 2 combat contre Balla Gaye 2 le staff de Boy Niang réclame 90 millions loolee la sunu làmb xamle diggante Balla Gaye 2 ak Boy Niang ñu ko seddalit waaye staff Boy Niang ñoom bokkuñu ca ñoom bi le combat fu dëgër këcc lañ ko teg fu sori lañ ko teg ku bëgg seen diggante ak Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye faaw nga teg xaalis bu bari ñoom staffu Boy Niang kafuñu ci réewuñu ci wecce a a bëreeg Balla Gaye 100 millions yu manqué fukk ku ko amul demal sa yoon 90 millions promoteur bu ko amul doxal sa dox yoruñu mbër fii asaaloo yoruñu mbër mu ñuy tayle mbër mu toll ci digg doolee mën li muy def xam li muy def mën a bëree mën a bàkku mën a def lépp moom la am ku la mi bëggoon bi lee combat 50 millions la ca feyoon staff Boy Niang ni ala mukk soxlawuñu loolu ci ñoom du combat bu ñuy sorxo sorxo dañu koy jël à millions la ñuy te promoteur bu pare pour tëgg boobu le combat dikkal bu dee Eumeu Sène junior ma daan Bour Sine bërki Démo Njaay moom it la mu xamle mooy promoteur bu taxaw ngir taxawal sama combat ak Tafatine na ñëw daan naa Bour bu bawol Tafatine moo ca des moom Eumeu Sène junior loolee la xamle mu ne le géant yi bawol nañ ma ko jox Tafatine miñ naan dañ koo ragal nañ ma ko jox man Eumeu Sène junior teggiwu kenn dawu ma daayu fi si yi coow amee rek ci ñoom lay tukkee waaye li ni mel moom bëggatuñ koo gis na jeex tàkk na ax làmb yépp booloo doon benn ñu combattre la violence bu dee dut janje ko président des amateurs moom la mu xamle mooy violence bi nañu ko waroon a jeexal ci jour ba nañu koy jeexale mooy CNG moo waroon a porter plainte le préparateur mystique bu ñàkk jariñu CNG sanction yi mu jël ànd naa ci waaye sanction yi dafa dese sévère gone gi ñuy wax plainte ñaari manager yeeg yépp la ñu aj ñeent ñooñu ma amul kenn ku ca def sa liggéey loolee nag du samay kàddu du jànjee moo ko xamle ña diggante Bébé Grand Médine laak école de lutte Pape Diop Boston bu dee beneen mbër ba nekk ca école de lutte Fodé Doussou ba ñu gën koo xam ci Demba Déranger moom pare na pour Pape Ndoye wala Nandi ñaar ñooñu lay dékk ñoom lay tàllal loxo bu ñu jàllee ca Kaolack coowal CRG ba fa amoon jeex na tàkk ba moom la mujjee defaat président coow la amoon diggante Lamine Dia ak Bira Sène ca Kaolack mujjee na ci jàmm ak salaam taxawalaat nañ beneen bureau CRG waaye Bira mooy continuer di nekk président ba bureau exécutif boobee nii la tëddee Ibrahima Sène ñu gën ko xam ci Bira mooy président ba vice président chargé de la lutte olympique mooy Mame Sémou Diouf deuxième vice président chargé de la lutte traditionnelle avec frappe mooy Mamadou Lamine seen ci mel ni maam Njambaan Jom Ibrahima Sow ñu gënoon koo xam ci cuuc Abdoulaye Thiam ñu gënoon koo xam ci laañ jomboor ñetti ancien gloire yi yépp ñu nga ca CRG bu Kaolack fa ñuy jeexale mooy ca diggante Sa ak Yékini Senior prince promoteur moo soxla bile combat mu nga jay dox te sori na ca bu dee Sa moom prince la mu xamle mooy wax naa ak ñoom d'accord naa ak ñoom je suis tombé avec Sa blocage bi am kay ci Yékini Senior bu ñuy d'accord ci kaw yi kàddu may taxawal bi le combat jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah